ayca jërë ngeen jëf ci taamu bi ngeen taamu seen site bi di wasaare célébrité ak Dakar Midi amaat nañu mbégte ak kontante jàkkaarloowaat ak yéen comme ça su nu ñu koy defee tey nag li tax ñu wàcc si terrain bi mooy diggante ki nga xamante ne nii moo di Sidi ki nga xamante ne nii moo di Waly Ballago Seck ñu jàpp benn date muy le 11 ñu woote fale ki nga xam ne moo di Saloum muy Bercy Saloum ñoom ñaar ñëpp fas yéene faa daje benn date benn jour benn date benn heure deneen wàcc nag gis askan bi tàllal leen suñu micro ñu wax diggante ki nga xamante ne nii moo di Waly Seck ak ki nga xamante ni moo di Sidi Diop kan mooy gën a feesle kan mooy gën a bëri la ay nit kan moo ëpp ambiance ñoom tamit askan bi dinañ ci wax seen i xalaat abu sama caméraman bi bu baaxee rek ñu daal di dem daal di gisee ak askan bi waxtaan ak ñoom. asalaamaaleykum kilifa gi nuyu naa la. waaw ah, ñu ngi lay fay. yaa ngi ci jàmm. waaw ah, maa ngi ci jàmm bu baax. tur bi nan la. man Abdou. waaw Abdou ñu gis ne ki nga xamante ni moo di Wally dafa jàpp Bercy Saloum Sidi Diop jàpp Bercy Saloum yow kan nga jàpp ne moom mooy ëppale ay fans. non pour man Sidi Diop laa jàpp quoi. waaw tax waa bi doon Sidi Diop. non non Sidi Diop lay bëggee Sidi Diop moom mooy loolu quoi moo mën a yóbbu xam nga. misigam dafa neex quoi man moom lay bëggee ko man amul benn artiste boo xam ne dama koy déglu Sidi Diop lay bëggee quoi waaw na mooy sama artiste. yow waroo yow waroo tudd Sidi Diop sa tudd Waly quoi. dama xam lool Waly Waly def. Sidi Waly lim def ko. waaw taw Waly mooy loolu Waly daf mën a bëggal waal day bëggal ni ñi barki yàlla man waal laay bëgg nice billaahi. jàpp ne waal yi moo daa xaw a Sidi. non waal yi loolu loolu du loolu du débat sax non non loolu du débat barki yàlla du débat. waaw yaa ngi waaj Bercy Saloum. Bercy Saloum maa ngi koy waaj man waal yi fu mu dem bëgg damay dem. barki Rasulullah man waal yi mooy sama artiste quoi. Wally Seck mooy gën a fees la parce que mooy favori loolu kenn du ko laaj ndax Ndakaaru am na géej ku ne xam ne ne Dakar géej a ngi fi kay. Wally Seck ak Sidy du ñu génération bokkuñu sax dama bëgg nit ñi bu ñuy tëkkale ñu tëkkale ñu nokk nawle Sidy Diop ak Wally du ñu ay nawle waaw waa Sidy Diop génération ñoom caat sekk la mais du génération Wally Seck. ah euh, man man man sama wax nag du si bëri parce que loolu loolu moom ndax dëgg far yàlla moom du yoon parce que ñoom ñaar ñoom ñaar ma xool ay mag ay mag lañ aar aar bi ñoo ko bokk loolu du yoon xam naa erreur erreur moo am ma xaw daal nu mu demee noonu ñoom daal jaaxal nañ ma trop. ndax seet naa tamit seen album bi Sidi mi ngi tuddee non waaye mi ngi tuddee bopp bosam xippil xool Sidi moom euh, bosam mu tuddee ko gis naa xaw ma daal dafa am. dafa am concurrence xaw ma mais Sidi moom waale raqam la moom waale magam la maa ngi juum waale magam loolu la laa bon ma si wax moom. kan nga dàq ne jàpp ne moom moo dàq way entre Sidi ak Waly. ah Waly Waly Waly mën na way mais Sidi tamit ñoom ñaar ñëpp mën na way mais xam nga. yàlla mooy def loo xam ne daal nan laa ko mën a nan laa ko mën a waxee euh, yàlla mooy may daal yàlla yàlla mooy may Sidy am na voix Wally tamit am na voix mais Wally moom international lay liggéey quoi mais Sidy nag moom xamaguñu moom xam naa pour Sénégal rek lay liggéey mais Wally moom international lay international lay def. ah Wally faramaare bi xam nga ne bu wootee nag ah Sénégal day yëngu ah par Paris yëngu fépp yëngu ah boobu. lan moo tax doon Wally ah lan moo tax si waa bi dama koo bëgg nag du tey démb la waaw. dama dégg ñu ne Waly euh, Sidy Diop moo dàq ambiance ah, de gisuma loolu ndax man Waly laay wër. Mhm. waaye daal macha fa tubaarkàlla macha allah xale xew waaw ah, kay. Ah. tey jàpp nga ne Sidy Diop mooy gën a fees de Waly fan nga teg lool. non laa jàpp ndax dama xam ne sële bi xale yëpp Sidy la ñuy bëggee quoi. Sidy instant bi dafa xew moom la yàlla teg ne nangu loolu quoi. dangaa bëgg a wax Sidi moo gën a xew waali waaw pour man loolu laa jàpp quoi. d'accord merci beaucoup. ok. d'accord merci beaucoup. barki yàlla. waa baax na incha allah. kii du dem fenn. tax nga wax loolu. non ñun Sidi Diop dañ koy topp fu ne ñun dañuy dem Kaolack dañuy bëggee. waaw ngeen di topp Sidi muy topp waali. yomb kii du dem fenn kii mosul fekk waali fenn. Ah. barki yàlla kii day bëggee Sidi Diop kii ma lay wax nii day bëggee Sidi Diop. kii waali man waali mooy sama artiste. Sidi neexut a bañ de. waaw man waali laay déglu te waali moo fi nekk. gars yi nañ nangu. waaw sama copain la ñu ànd sax suur waaye man sax suur moom dañuy werante ci loolu quoi moom la man waaye laa waaw. merci beaucoup. waaw. te bu keroog jour ba lay leer lu ne fang kenn du ko jeex na. waaw lan moo tax suwaa bi doon waali. lan moo tax suwaa bi doon waali. parce que waali moo fi nekk bu dee bu ñu naan ballon d'or bu wax ballon d'or xam nga Messi lañ ko jox mais bii leer na ballon d'or jamono yi ci musique waali Seck ko yor. dama euh, moo gën a man a ambiance ko waali. loolu ñu koy wax mooy ñàkk gis-gis rek ak ñàkk xam-xam mais ñi koy wax ñëpp amuñu xam-xam mais boo bëggee tëkkale Sidi Diop ak Waly bokkuñu sax tamit boo bëggee yemale fi ne nii eh, Cristiano Ronaldo ak Messi bokkuñu Chris mën naa football mais Messi du morom bokkuñu sax. boo koy laaj chéri yoo tamit nag pour Waly rek ah dëgg du neex. ah xaw ma di wax dëgg yàlla tudd tudd ma kenn nag dëgg la xale la waaye nag ñun ah yow tamit lu jënd màgget màgget am ngelaw ji bu jommal gone waaw. yaa ngi waaj bër si Saloum. ba mu bëri doole. ah waaw. man dégg naa si Waly si kee ngay dem si Sidi Diop. mu ko ci àdduna fas yéenee Sadio rek dem jàppale ji faramareen bi waaw ñun ay Waly famille lañ waaw dëgg du neex waaw kii wuñu kenn nag mais nag waali moom wax dëgg yàlla dañ ko bëgg nag waaw. waaw merci beaucoup. ok merci chérie. ñu day neex. Euh, Waly laay déglu nag si dama ko daan déglu dama ko daan déglu mais fu mu toll nii moom maa ngi si Waly si ñoom ñaar ñëpp daal. tax nga bàyyi wax Sidi. <laughs> non laa damay dama tam man su ma ko déglu dama koy imiter quoi. léegi man loolu loolu laa bëgg invité léegi waat rek laay déglu. la waykat laa. dama bëgg nga wayal ma benn way. way nga ma wayal la. maanaam violence bi am ci réew mi. violence bi am ci réew mi ma xool. jiri ngoone maat la be samb kuli ma ca ay sama waaji artiste ñi nañu bokk ndey ak baay adduna du dara adduna daale adduna du dara adduna moo mën a wóor xañ na man day xañ ma baay bu ma diggee sama doom danga may nax adduna yaa yaa mën a wóor yaa mën a wóor war na buur war na waxambaane ci mim réew adduna yaa léele yaa mën a wóor waaw ah, merci beaucoup. ok merci beaucoup <laughs> ngeen jëf yaakaar naa ne nii lañ leen ko waxee woon tey nag ni ngeen koy gisee ñu ngi woon tey si mbeddu Ndakaar yi di waxtaanee diggante ki nga xamante ni moo di Wally Seck ak ki nga xam ne moo di Sidy Diop ñoom ñaar ñëpp dañu daal di woote li nga xam ne moo di Bercy Saloum le 11 décembre bi ñu nekk incha allah ñoom nag askan bi dégg ngeen ñoom li ñu ci wax ñii nee nañ Wally Seck mooy gën a feesle ñii nee nañ Sidy Diop mooy gën a feesle ñii nee nañ Wally Seck moo dàqawoy ñii nee nañ Sidy Diop moo dàqawoy bàyyi rek bolo 11 incha allah ñu daal di fex wutali li nga xamante ni moo di Bercy Saloum yaakaar naa ne dara du leen di ump ñun waa Wassare ak ñun waa mi di dinañ leen toppal action bi ba fu mu yem neex ndax kat dama koy faral di wax saa su nekk seen mbégte mooy suñu yite ba tax lu ngeen di bëgg rek la ñuy def may jaajëfal Abou sama caméraman bi di leen jox rendez-vous ba beneen yoon incha allah jaajëf.